société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse tali nag jàmm ñoo ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyantoo wolof njaay nee tond du forox waaye nag weddi du ragal seetal sa der la yéen i kaay gi réew mi ko di cee xëy duñu xibaar nañu événement yi nga xam ne moo fi amoon fan yi nga xam ne moom la ñu génn ak ñi nga xam ne ñoo ci faatu ak li fi jot a ci réew mi gouvernement bu Sénégal dañoo ñoom tim daal ab mémorandum la ñoom génnee ni ki démb la ñu doon janoo ak taskatu xabaar ñoom nag dañoo tuumal régime Macky bi maanaam nguuru Macky gi ne ñooy tiire ci askanu Sénégal ci mois de mars atum 2021 ak weeru juin atum 2023 lépp loo xam ne xew na ci réew ñoom nee nañu Macky la te lépp dañu ko documenté maanaam dañu ko daal teg fu leer nañ ñi ñi nga xam ne ñoo ci faatu ñoom waa Pastef nee nañu xam nañu ñëpp xam nañu seen tur xam nañu seen sant xam nañu ba léegi lu toll ci fanweer ci nit ñoo si ñàkk seen bakkan te nee nañu nguuruk lu toll ci téeméer juróom fukk ak juróom ñaara ñoo ci blessé ñoo si am ay gaañu-gaañu te ñoom nee nañu nguuruk Macky la lu toll ci fukk ak juróom ñoo xam ne ay bal la ñu leen tóora mën a balu fetal la leen tóora am na si ñeent ñoo xam ne seen i néew ba léegi xamaguñu ñan lañu ñoom waa Pastef ñoom nag nee nañu dégg ngeen tamit ñuy wax ne am na ay néew yoo xam ne génne nañu ci géej gi lu toll ci 80 pour cent ci ñi nga xam ne ñoo faatu bal la ñu leen tóora seen i njaboot ba léegi mënuñoo jot seen i néew ndax gouvernement gouvernement bu Sénégal ñoo lànk wa a signé papier yi yéen i gi de la témoin nee na ñi nga xam ne ñuy opposé ñoom nag nee nañu sonn nañu tàyyi nañu ci Macky Sall ji li ñu mooy mu démissionné yéen i kaay gi de libération xëy du ñu xibaar ñi mu àndal ñoom nag mbir bëgg ñu ko bàyyi mu sedd ndax li nga xam ne moom la ñu sàkk ab enquête internationale ñu ubbi jib enquête internationale boo xam ne waa ONU ak waa Nations Unies ak Union africaine ci six cent cinquante ñoo xam ne teg nañu leen loxo maanaam ñi nga xam ne jàpp nañu leen toll nañ si juróom benn téeméer ak juróom fukk am lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ñoo xam ne am nañu si gaañu gaañoo yéen kaay gi di leen fu Ousmane Sonko nee na bu dee am na lenn loo xam ne moom la def maanaam seul tort bi nga xam ne def na ko maanaam mooy nekk opposant boo xam ne bu ferme la opposant boo xam ne bu dëgër la waaye bu crédible bu populaire lii rek la def defuma leneen waaye nag ci ayug Macky Sall gi lii crime la Ousmane Sonko nee na ci ayug Macky Sall gi boo nekkee opposant boo nga dafa mel ni da ngaa def crime ah. waaye tamit bu dee da ngaa nekk opposant boo xam ne bu crédible nga da ngay mel ni ku def crime waaye tamit bu dee da ngaa nekk opposant ne xam ne bu populaire nga da ngay mel ni da ngaa def crime ba tey ci biir bi di l'info ah, njiitu réew mi di président Macky Sall nee na en tout cas Liam Mbade Sall dina ba kenn du ko dugal ci kaawa ah. loolee kàddu Macky Sall la yéen a kaay gi de la turbine ci mu njëkk ma ñu fekk fa bugaan ngay dane daan nay wax ne Macky Sall bu yokkee benn minute ci mandaam bi pale ba la ñuy dem daal di koy délosé kàddu yi bugaan ngay dane la nee na Macky Sall mandaam bi benn simili benn simili rek bu ko ci yokki danañu ko daal di délosé mi réew mi ak dalul réew mi ci loxol Macky Sall la nekk wax na kilifa diina yëpp yi nga xam ne dem naa fa na leen ñaana leen Ousmane Sonko ndax jamono ji ma ngi ci ay jafe-jafe ba tey ji biir journal bi de la témoin bugaan gi dane nee na Macky Sall comploteur politique la yéene kaay gi di wal fajiri maître Abdoulaye Tina moom nag nee na dina saisir ñi nga xam ne ñooy groupe de travail de l'ONU ci détention bi nga xam ne moom la ñu def Ousmane Sonko moom maître Abdoulaye nay wax ne Ousmane Sonko nii nga xam ne moom la ñu ko jéngee ba munta génn fenn loole tegewul fenn loole moo tax ñu saisir groupe de travail de l'ONU yéen a kaay gii de Le Quotidien njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag neena na dina continuer di doxal waaye nag respecté li nga xam ne mooy état de droit waaye tamit réew mi moom Macky nee na du bàyyi kenn maanaam muy salfaañi réew mi di dugal réew mi ci kaw yéen a kaay gii de L'Observateur ak Sud du Quotidien ñoom ñu xëy wax ci li nga xam ne mooy dialogue national bi ak lu jëm ci wàllum article 28 alinéa 2 déggoo nañu ci lu jëm ci ñu laa koy modifié te nag suñu ko modifié Karim Wade Khalifa Ababacar Sall dinañu mën a bokk ci élection présidentielle 2024 lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi gars yi nee nañu loolee nañu ko bàyyil waa conseil constitutionnel lu jëm ci wàllum nag personnalité bu neutre boo xam ne mooy organiser élection yi loolee gars yi si ndax ñi nga xam ne ñooy société civile bi ak opposition ñoom daal ñu bëgg maanaam mooy personnalité boo xamante ni bu tëddee njaxaanaay la daal di organiser yi waaye loolee ab déggoo ba léegi gi

ji li nga xam ne moo am ci xar ci biir réew mi daaw sax ci waxtu wi amu ko ndax lu toll ci fukk ak juróom-ñetti junni ci ay xar yokku na ci waaye nag bu dee ci diwaanu Ndakaaru maanaam moom xar daf fee manqué moom gouvernement bu Sénégal nangu nañu ko manqué na lu toll ci 39 325 maanaam fanweer ak juróom-ñeenti junni yu fekk ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróoma ba ci biir journal bi ñoom Abdou Karim Fofana nee nañu xam ne état bu Sénégal génne na ko jox ko opérateur yi ngir nag ñu dem mën a wuti ay xar yéen a kaay gii di lu jëm